bi ma xëysee li li ma njëkk a def mooy damaa ñëw distancé chaise yi bi ma ñëwee fekk isa dama ko dama ko distancé kenn ku ne ñu séparé wu euh, xëy na un mètre dana fi xat waaye ñu séparé ba nga xam ne nit dina mën jaar si diggante bi parce que ndigal xam ne le chef de l'État moo ko santaane kon sénégalais lañu moo ñu jiite bu ñu loolu dañ ko war a def ndax suñu jàmm yaram la sant mbooloo mi itam kenn ku ñëw mu yor masque protéger boppam parce que du caagee nag ni da nga da koy def ngir ndigal sa bopp ndax euh, bi pandémie bi amee ak léegi Touba ci kanam ni ci jóg di ko ci dox kon buñ dajee mbooloo mel nii war nañoo sàmmante ak sart yooyu fexe ba distancié wu nga xam ne kenn ku ci nekk da nga séparé ak sa morom nga takk sa masque mu sell laal ko fexe itam ne ba euh, jataay bi ñu mëngale ko ak ndigali kilifa yi loolu moom fas nañ ko yéene te itam ñu ngi dox.